waaw tout à fait euh, du ma si sori tak de de trop parce que euh, dafa nekk euh, loo xam ne dafa entre instance parce que dafa nekk fédération sénégalaise ak la fédération rwandaise de football mu nekk benn discussion boo xam ne entre ñaar ñi parce que euh, si vous vous bien effectivement on, Sénégal dafa waroon jouer match aller bi fii si kii Rwanda mais malheureusement ñoom 2022 oui mais mm-hmm. ñoom amuñu woon terrain boo xam ne mun na accueillir foofu un match international donc ñu demander à ce que ñu jouer au Sénégal donc bu ñu laajtee jouer Sénégal ça voudrait dire dans un premier temps c'est pas un accord euh, ferme mais dans un premier euh, pour ñu jouer Sénégal effectivement après euh, peut-être entre discussion parce que c'est des discussions entre entre responsables Sénégal dem foofu noonu mais malheureusement aussi Euh, si discussions yi peut-être euh, Rwanda seen bopp parce que ñoom fu ñu bëgg a jouer sax nekkul euh, à Kigali parce que fu ñu bëgg a jouer c'est un peu loin de Kigali donc ce qui fait que amul sax ay site de d'aéroport pour équipe mun a dem foofu noonu donc le Sénégal naturellement qui devrait recevoir le match retour au Sénégal Euh, bind pour comme quoi pour expliquer leen comme quoi bon lu match la c'est vre que ah, dans un premier temps jot nañu am ay discussion ay ah. ay esquisse de discussion par rapport à sax mais dañ ko jouer au Sénégal donc si loolu la ñu nekk donc euh, mënuma dem fu sore sore sore parce que dafa nekk loo xam ne entre entre ñaari fédération te ñaari fédération am na ay responsable ñoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy waxtaane si seen biir donc loolu man du ma si dugg de trop parce que euh, awma élément de vraiment probant yoo xam ne mën naa mm. ko wax fii pour que askan bi vraiment jàppul si loolu naan lii moo war a am wala lii moo du warul am kon xamoo lan moo tax fi mu ne nii ba léegi amaguñu accord non on peut pas ko accord parce que effectivement gis nañu temps yi euh, démb sax si réseau yi gars yi di bind di envoyé ak ce qui déplorable parce que mënuñu concevoir quand même mm-hmm. euh, ay responsable toll à niveau certain niveau de responsabilité que ñu am ay discussions yoo xam ne entre responsable mu am ay ay yooyu di di di retrouver sur la place publique. ay fuites ay fuites donc ça c'est c'est c'est vraiment euh, quelque chose de regrettable ñu koy ñaawlu trop euh, mënuñu ko accepter parce que c'est entre ñaari responsable ñaari fédération responsable ak instance boo xam ne moo tënk football africain donc euh, ñu gis ne am na fuite démb man sama bopp gis naa ko ñu koy ra ñu koy ñaawlu bu baax a baax sax parce que déjà. rien n'a été par rapport au match ndax fii la wala Rwanda mais ñun ñu ngi jàpp ne fii lañ koy jouer le 9 euh, septembre euh, au Sénégal